croissance am amul beneen pays bu ko am ci àddina bi léegi Inde xaw ko dab xaw a jege. Mm-hmm. donc muy les prouesses du communisme malgré li ñu koy li koy reproché ñi nga xam ne ñoo gën a opposé wu capitalisme tamit ne capitalisme day exploiter les masses day exploiter le travailleur mais le niveau de vie de ces travailleurs là soumis au capitalisme mësta egg fi mu egg actuellement ni pays capitalistes yu mag yi muy États-Unis muy France muy Allemagne mais ni lii seen euh, seen citoyens yi am niveau de vie boobu ñi ko contre ne système baaxul sax amuñu niveau de vie boobu seen dëkk cest ñun suñ dëkk yi nii amuñu niveau de vie bi nga xam ne ñeneen c'est des capitalistes donc muy war ne benn système amul boo xam ne lépp a bon wala lépp a baax alors li ñu doon xalaat nag ñenn ñi mooy kon nañ génn léegi ci débat boobu sorti de la politique nañ génn ci affaire boobu léegi ñu ne kon li xew léegi du bii système dafa gën bële li xam mooy reflux flux ak reflux day dugg di génn léeg-léeg bii gën léeg-léeg bii bi mu gën a intéressant li mu gën a important c'est-à-dire que léegi kon li am solo ce n'est plus ces grandes idées là c'est le privé c'est le domaine privé cest que le bien commun ou la chose publique ëppatul doole le domaine privé nit ki c'est-à-dire thèse convergence boobu des systèmes et de la pacification par l'économie am na yeneen aspect en particulier dafa indi li ñuy wax dépolitisation cest à léegi nit ki day recouvrir ci boppam ba ñu dugg ci ci ci grande idéalisation mu indi li ñuy wax la dépolitisation mu indi une une une nouvelle forme de démocratie limitée mm-hmm. à l'arbitrage entre les élites les élites léegi ñun suñu rôle ñu ci bari les citoyens mm-hmm. mooy élection jot ñu dem voté ji atte leen entre élites la parti nangam PS PDS AFP machin ñu dem ñun de sànni suñ carte ñu bëri foofu la ñamale seen kii mm-hmm. wutuñu ci leneen a ah. milité wu ma libéral sama new ci man li mooy naa am lu yóbbu sama kër sama doom bu feebaree ma faj ko loolu foofu laa yam c'est-à-dire limite à arbitrer jouer un rôle d'arbitrage entre les élites loolu la ñuy wax la dépolitisation entre autres c'est-à-dire on est rentré dans ce qu'on appelle l'ère du yourself les américains di wax voilà be yourself hard idéologie li ko remplacer mooy soft idéologie sama idéologie sama kër leem sama liggéey donc li ci des dugguma ci ay mouvement de masse syndicat yi ni mu amee woon doole bu njëkk amatu ko doole parti ni ñu amoon doole bu njëkk amatu ko doole parce que nit ñi ñoo li ñu wax li ñuy wax dañoo repli sur soi dañoo ce qu'on appelle les attraits du domaine mm-hmm. domaine public dañ ci am déception cest à que nit ñi ni ñu doon militer bokk de masse du dugg mm-hmm. conscience politique bi nit ñi amoon dem nañ ba ne dañ ci am ay déception parce que résultat escompté yi mm-hmm. parce que boo daan def politique wala nga bokk ci dara li nga doon xaar mooy retour sur investissement pas à titre individuel vulgaire nañ ko xalaati nii am oto bu rafet am kër gu sa dund. Mhm. nga gis ci retour sur investissement à titre individuel yow ak sa fay mais bu ñu demee ba gisatuñ ko nit ñi ne kon ñi naa leen bàyyi retiré wu. Mhm. dugg dans le domaine du privé retour dans le domaine du privé. Mhm. léegi na la question mooy est-ce que ñëpp dañoo génn domaine public bi ñëw ci domaine privé bi ban moo gën a intéressant est-ce que mën nañu imaginer une issue positive à cette à cette entre public et privé lan moo ci lan moo ci intéressant ah xanaa mu indi ñu. ci li nga xam ne mooy nag li ñuy wax l'héritage politique il peut y avoir d'héritage uh-huh. héritage ñu ngi ko war a wax rek bu fekkee ne am na lu ñuy hérité am ko ko war a hérité c'est ça héritage ndono uh-huh. il faut mu am lu ñuy donn am ñu war a doon bu uh-huh. fa amul léegi lu ñu war a doon actuellement lu ñu war a doon problème bi mooy mooy loolu grande idéologie nee nañ muy communisme muy libéralisme muy conservatisme déchaînetul passion yi boo demee France de de de de jusqu'en 1970 parti communiste dafa amoon doole Georges Marchais boobu ñun juddoogu ñoon waaye dëgg yàlla am na lu ñu ci jàngatut amoon fa doole ba fii Sénégal fii defe naa SFIO nga xam dañu as affilié woon ci parti socialiste français à l'époque mm-hmm. les jeunes socialistes muy mu doon mouvement yu amoon doole mm-hmm. communisme Cuba amoon fi doole mm-hmm. loolu lépp dafa dafa dafa wàññeeku baax donc mu mel ne li waral léegi passion boobu wàññeeku mooy daf mel ne ñaari mbër yi dafa am ko ci daan morom ci ñaari mbër yi bu demee ba affaire bi xumbatul mooy am na xaw nit ñi li ma doon wax sànq am na bu daan do moroomam muy ci indébitablement mooy capitalisme actuellement dafa daan communisme avec la chute du mur de Berlin nit ñi tamit am yeneen préoccupation terre à terre immédiate retiré mm-hmm. boo jëlee aujourd'hui pays communiste à proprement parler ci àdduna bi man de yi ma ci gis bariwul boo jëlee Corée du Nord qui est une autarcie dafa tëju ci boppam Afrique nga jël ci Érythrée ci est un véritable pays communiste mm-hmm. nga jël Amérique du Sud peut-être Venezuela ak Hugo Chavez donc euh, ak fan Cuba donc loolu laa gis ci dëkk yi nga xam véritablement mën nañu wax ne ay pays communiste lañ ba léegi li ci des lépp ay njambaan la le grand capitalisme pareil amul actuellement xam la ci xorom mooy am na ku daan morom ji li ñuy wax de capitalisme mm-hmm. sur le plan économique l'économie de marché aujourd'hui est indubitablement capitaliste parce que foo gis les les place places boursières le CAC 40 en France le Nasdaq à Londres euh, New York Stock Exchange à New York et cetera muy grande place boursière dañoo am doole boo xam ne kenn warantewu ko mais li mu jur mooy crise mondiale actuellement nii am na crise mondiale yow daan nga mbër bale mais mu am sa problème bopp bu la bu la ñëwul muy sur plan économique am na capitalisme sauvage ah kenn warantewu ko mais li ci bizarre mooy sur le plan politique capitalisme dafa wàññeeku lu tax boo jëlee pays capitalistes yi gën a mag dañuy dugal ay politique sociale ci seen seen biir dund par exemple la couverture maladie universelle boo demee dëkk mel ne France ñu boo fa nekkee di jàng étud nekk étudiant wala nga feebar wala amul benn moyen sax dañ lay faj parce que am nañ euh, lu ñu koy waxati couverture boobu mm-hmm. mu am SMIC salaire minimum d'insertion garantie ça c'est des ce sont des politiques sociales quoi qu'on dise ah politique sociale ça c'est du communisme bu doon dañu wax capitalisme pur et dur amoo la fajoo dee lan su ñoon newu ci mais loolu amatul moom capitalisme bi gagné jël ay mesures sociales dugal ko ci biir politique am ci biir dundam lu mu créé loolu le fait que ki gagné jël ay mesures du vaincu yi di ko appliquer sur le plan politique créer frustration mu créer des extrêmes aujourd'hui c'est-à-dire équilibre bi amoon l'équilibre de terreur entre les deux blocs bu mu demee ba tas dafa créer de nouveaux mouvements yu génn mouvement bi njëkk génn mooy l' de droite boo demee l' extrême droite dans les pays occidentaux l'Europe occidentale par exemple dañ ne non lii du lii du c' pas la droite ça droite boo xam ne day faj ku feebar ñu faj la immigré bu ñu ñu ne ñu ne marhaban non non non loolu duñ ko mën a dégg liñ comme daan na ñële moom ñun dañ appliquer suñu mesure on ne veut pas de cela on veut une droite dure on veut capitalisme dur parce que dañoo dañoo jege. on veut un capitalisme dur sans nuance sans mesure ko mesure les extrêmes extrême droite yëpp yi nekk Europe loolu la ñuy wax on veut plus de ces mesures sociales là dans la vie politique et économique soxlaatuñ ko mu jur les extrémistes bi nga xamee ne communisme daanu na am beneen force bu bu bu génn suñ koy wax te tubaab yi di ko wooye euh, islamisme islamisme bon c'est la définition des tubaab xaw ma nag ndax si c'est bon terme ou pas mais euh, li nga xam ne moo wérte wóor li ma waxoon par exemple ne l'islam système de vie la mm-hmm. islamisme si sama conception personnelle mën nañ ko waxtaanee après de peut-être que le terme n'est pas approprié approprié mais idéologie la loo tax ma ne idéologie la parce que idéologie mooy bu ñu yàlla ñëwee ne yaa ayyuha allazina amanu innama al xamru wal wal wal wal wal maysiro wal wal yaa innama xamru innama yaa ayyuha allazina amanu innama al xamru wal maysiro wa azlaamu rizun min amali sheytaan dama leen a tere naan sàngara ak jeu de hasard ndax c'est des jeux de satan mm. yëf mm. yàlla lu mu wax yaayu lazina amanu mm. yéen ñi gëm mais intégriste bi nekk nord Mali gaw bu ñëwee baar yëpp lay tëj moom njaago bi war a naan sàngara yoram newu ji alors que ñi gëm lay te yàlla li mu wax yaayu lazina amanu la wax yéen ñi xam ne yéen a gëm boo ñëwee nag man sama woon ne man ñëpp laa kenn du fi naane sàngara yaa ngi ci idéologie mën nañ ci discuter après de mais sama conviction mooy nekkatuloo ci l'islam comme ñun niñ ko percevoir au Sénégal yaa ngi ci beneen idéologie mooy sa loi moo dominer yeneen loi yëpp sa loi moo nekk féete kaw beneen loi bu man di doon mu indi intolérance mu indi donc ñaari mesure yooyu mm-hmm. ñaari forme de de nouveau de nouveau comment dirais-je adversaire yu jàkkaarloo capitalisme mooy loolu les extrêmes les deux extrêmes extrême mm-hmm. droite ak l'extrémisme religieux ni ko média tubaab yi di wooye mm-hmm. mais bu ñu euh, nee maa naroon fàtte bu ñu nee euh, socialisme tamit dafa daanu noonu complètement c'est am na beneen socialisme bu dund bu dund léegi socialisme bu Joseph Staline. Mm-hmm. wala euh, Brejnev. Mm-hmm. d'accord daanu na socialisme fermé tëj kenn booy tukki sax dañuy jox sa passeport ak machin xool dafa xewi na d'accord mais bu may bu mel ne Brésil c'est un pays socialiste. Lula c'est un socialiste. pourtant Brésil aujourd'hui mooy sixième puissance mondiale derrière les États-Unis mm-hmm. la Chine. le Japon euh, l'Allemagne et la France jël na place su Angleterre Angleterre moo kon sixième Brésil jël na place am te ca kaw France la jëm te Brésil c'est une social démocratie moo am loo xam ne dafa remplace socialisme bu dëgëroon bi amoon ñu tudde ko social démocratie maanaam on un pays social d'accord libéral sur les bords mais quand même politique sociale Brésil am na benn loi bu ñuy wax euh, la lumière pour tous mm-hmm. lumière pour lu laa def ko fa Brésil amul fooy dem amul courant mm-hmm. amatul mu ne courant loo xam ne ñëpp ko war a am. brésilien bu man di doon foo man taxaw ci dëkk bi war ngaa am courant ça c'est une mesure sociale quand même mënoon na ne ñi dul fay courant lu tax ma leen jox courant. muy mesure sociale moom laa doon wax Brésil pour man c'est le meilleur exemple pour mixte bi am entre socialisme ak libéralisme aujourd'hui nga dem daal les grande démocraties les grandes puissances libérales waxoon naa ko sànq. ñu ngi dugal ay mesures sociales. ñu ngi dugal ay mesures sociales léegi muy loo xam ne. dafa dafa indi maanaam une sorte d'équilibre entre euh, ba nga xam ne am na am na daal euh, duel bi ci boppam amatul sens li ma doon wax li mu te naroon ko fàtte maanaam euh, li tax ma ne ñee l'islamisme idéologie mhm. ñun lu ñu wax laa ikraha diine de amul forcé diine amul forcé bu fekkee nag dangaa ñëw na bëgg imposer say loi yaa ngi ci idéologie yaa ngi ci idéologie léegi nag mu ne Sénégal kon ñun fan lañ nekk actuellement bu fekkee ne li nga xam ne idéologie yi ñu doon jàng muy capitalisme muy socialisme nga xam ne ñoo forger suñu histoire politique dem nañ ba amatul sens parce que benn bi gagné na moroom mais bi mu ko gagné tamit beneen dafa ñu dugg ko seey ci moom ba nga xam ne léegi c'est un genre supp kànja la quoi donc politique bi fi nekkoon gouvernement bi fi nekkoon muy gouvernement Abdoulaye Wade par exemple mm-hmm. ça se disait un gouvernement libéral mm-hmm. mais quand même amul benn régime bu fi def autant de mesures sociales je crois que euh, affaire senior yi la 60 ans yaakaar naa am na bu ñemee ci hôpitaux yi moom ñoom nag dañ doon bëree annonce nag xam nga ndax lépp c'était vrai <laughs> naa 60 ans yi amoon nañ benn mesure bu leen defal yu demal mag ñi les femmes enceintes am na mesure d'accompagnement yu ñu leen doon defal mm. donc muy mesure yoo xam ne te ñun sax li ci gën a xorom mooy boo jëlee les textes du parti démocratique sénégalais mm. dans son article 2 mm. des daf ne parce que il faut ñu ñu rappeler ko rapidement. Mm-hmm. parce que à à l'époque Senghor comme àdduna Afrique yëpp parti unique moo fi nekkoon Julius Nyerere Tomo euh, Jomo Kenyatta. Houphouët-Boigny euh, euh, ak ñeneen ñi. Mm-hmm. bon Senghor ne man ñii daal ay ay kii lañ man maa leen gën a nekk tubaab maa leen gën a civilisé et puis voilà il faut que man tubaab la donc naa ubbi tuuti. 76 mm-hmm. mu le multipartisme des trois courants. 76 donc socialisme mu ne moom moo ci nekk. mu ne nag il faut un courant libéral mm-hmm. laa dina ko ma nangu naa ci dugg mm-hmm. malgré tout jël na courant libéral bi mais article 2 se réclame un parti socialiste mm-hmm. socialiste parti démocratique sénégalais mu am troisième courant mooy courant euh, kii bi nu courant communiste bi RND euh, comment ça s'appelle Cheikh Anta Diop ne du ko jël man du ma nekk ci un pays boo xam ne 95 la maanaam maa ngi jël l'idéologie communiste te l'idéologie communiste li mu wax dafa leer la religion est l'opium du peuple daf ne reconnaître religion mu bañ waa waa kii dugg ci Majmout Diop dem jël ko Majmout Diop moo dem jël ko hmm. bu ñu nee 78 deux ans après ñu indi quatrième courant courant conservateur parce que Senghor bëggoon na am courant yi am France yëpp mu indi ko Sénégal copier rek collé hmm. waa ji Guèye dem jël ko Babacar euh, ah Boubacar Guèye dem jël ko hmm. donc pour te dire que même ñun bi ñuy copier tubaab bi c'était pas par conviction dañoo jël rek copier coller par conviction taxuloon ñu ko wax mais dëkk yi nga xam ne fële vraiment idéologie xool ko suñ gouvernement actuel yi gouvernement bu mel nii fii rek la mën a am amul c'est pas imaginable dans les vrais dëkk yi nga xam ne am na am na am na les clivages yu wóor yu dëgër des des des maoïstes des léninistes ñoo bokk ak des de gens qui disent des libéraux purs et durs mm-hmm. c'est pas imaginable ailleurs c'est pas imaginable fii nag bon gars dañ naan bon comme dëkk bu néew di doole lañ il faut ñu ñu xool nu ñuy développer dëkk bi rek ah donc yeneen yi ay ay wax la ni quoi idéologie dans le sens premier bi ma doon wax sànq. Mm-hmm. discours la ah léegi li intéressant mooy y a des postes à pourvoir nekk naa ci opposition pendant 12 ans dama may faut ñu dund. il faut ñu dund boo demee maanaam mën nga am deux postes de ministère am euh, député yi nga am ci 10 ou 20 poste directeur généraux nga am ci 10 conseil économique social nga am ci nga am ci nga am ci 10 ou 15 donc. finalement di nga classé di nga casé sa personnel politique alors que fii loo réalité la fii dund politique pour nga survivre il faut nga nekk aux affaires sinon gars yi dañ la fi ba dem te militant ñoo naan ñokket bàyyi la fi dem feneen yor sa yëfi bopp wala nga nekk sàndaga di jaay dafa metti de di liggéey am loo mettre sur la table poser loo xam ne yow lii ci nga compter c'est pas donné à tout le monde li gën a yomb nag dem politique politique moom laaj ñu la benn diplôme laaj ñu benn xam moom na nga indil dara rek loo indil parti wala loo indil leader bi wala loo indil euh, ki nga xam ne moo moo moo mooy décider. maa ngi ko doon temps bi ñu defee élection législative yi. Mm-hmm. ma gën ci média yi man bu ma sañoon ñu changer mode de désignation des députés wéetu naa ci loolu nag mais c'est pas grave parce que ba ma naan Abdoulaye mënta doon candidat dama ci wéetoon lool. Mm-hmm. mais dem nañ ba ñëpp ànd ci après. loolu rek am solo. Mm-hmm. bii tamit bi ma nee wax dëgg yàlla man li ma gëm. li tax Sénégalais yi demuñu voté ji am na xam ñaa ngi doon sànq la préférence du du du du de la sphère privée dem ba ne sama yëfi bopp ma doy léegi parce que ñu doyatuñu li ko indi par exemple ñu ne 150 députés la ñuy fal ñu ne 60 ci liste nationale lañ leen di fale 90 sur liste départementale déglu baax ma expliqué 60 sur liste nationale moo ñoo xam ne bokkuñu fenn du daar Musti du Mbàkke du fenn nit ay dugg rek ne ñii ñi mooy sama 60 liste ñi ñooy sama liste ñi ñooy sama parti bu ne nii ñii laay def man ñii laay présenté bu ñu voté Darou Moussi voté Diourbel voté Mbacké voté feneen ñi ëppale foofu bu ñu ko calculer ba pare ñu ci la def mode de calcul quotient division lay doon ñu ne parti bi raw na fee kon nañ xool 60 yi nombre de votants yi nombre de bulletins ñu diviser ko par 60 yi ñu xool ku nekk ñaata kay am nga xam ils se retrouver à l'Assemblée nationale sans représenter personne man les clandestins politiques laa leen ñooñu bu ñu demee assemblée xooluñu la xoolu xooluñu ñoom seen bopp lañ fa nekkal ak ke leen def ca liste ba première anomalie dans une démocratie bu mel ne bu Sénégal 60 personnes yoo xam ne bokkuñu fenn féetuwuñu fenn ka leen fa teg lañu fa nekkal lu mu joxañ ñu dagg première anomalie un député dafa war a représenter une localité même si c'est un représentant du peuple dafa war a am fu mu rattaché wu deuxième anomalie mooy 90 yi nga xam ne ñu ngi leen fale ci départemental yi ci département mais lan moo incohérence foofu xoolal dama ko jox toujours exemple Mbàkke cinq députés lañu am benn Bokk Yaakaar ñoo raw d'accord mais boo jëlee parti démocratique sénégalais jël bokk gis-gis jël euh, Serigne Mansour Sy Djamil jël MRDS jël ñi des PVD mais ñoo leen ëpp fuuf du benn sax ñële boo leen boole ñoo ëpp ñi fuuf ay ay bulletin de mais démocratie duñu ne loi la majorité la man je serais d'accord fekkee parti bi raw dafa ñëw am 50 pour cent des voix plus une mais yow mën nga am 20 pour cent ñi des am 20 am 80 nga raafale lépp est-ce que loolu yanu na maanaam nga am vingt pour cent ñi des bu ñu leen boole ñu am 80 nga raafale cinq députés yëpp mais nañ seetaat yëf fii foofu tamit problème liste am na fa problème liste am na foofu tamit parce que mënoo ñëw ne dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy fal liste de 4 députés ñee fal liste mais 4 député yooyu amul sens parce que lu tax bu fekkoon gox bu ne dañ ne benn député moo koy représenté. yow nga ñëw nekk kan PS ñëw nekk candidat PDS ñëw indi AFP yow nga ne man kër sëñ Lo man damaa bëgg nekk candidat mm-hmm. parce que dëkk bi fi laa dëkk war nañu maa wóolu mais lu tax waa dëkk waruñu laa wóolu plus que les politiciens voté la ndax boo demee assemblée nationale da leen fa toogal boo leen fa toogal yeneen élection yi ñëw ñu jëlee la fa mais fekk liste la fa teg et puis benn arnaque bi ci dañoo dem ba ci biir am ñu retiré wu ah mm. ñu nit ñi dem voté leen ba pare ñu génn man déwuma assemblée dewuma assemblée ça m'intéresse pas mais kooku c'est une trahison amul sens loolu day gën a dégoûter l'électeur maanaam ñoom dañu réfléchir sax dama yàlla baal dañuy dem ba ki waroon na voté beneen nan mais kii man defoon ma ko daaw lu tax ma ñëw di ko di di demaat di voté li ma yëg ñëpp toog sama kër man ma jóg dem voté ji far mu ne ma moom dematuma mais man jarul ma jarul ma jóg ils ne calculent pas les conséquences de leurs actes li ma doon proposé na mooy Sénégal 150 mhm. députés la ñuy fal nañ ko diviser en 150 circonscriptions diviser ko 150 circonscription circonscription bu ñu ne benn député lay am ku wóolu sa bopp ñëw taxaw waa gox boobu voté ñu ne kii mooy suñ député boo demee doo déglu Macky Sall doo déglu ñas doo déglu Idriss Seck sa waa gox ngay déglu lañ bëgg nga fay nga fay nga fay nga fay def mais tant que amuñu réforme boobu dem ba nga xam ne député bi ña ko fal lay déglu affaire bi moom ay nax ay naxe rek la léegi nag dëkk bi nag da ragalante ginnaaw dafi dafi bari vraiment ragalante ginnaaw rek ñemewuñu wax dëgg parce que ku nekk yaa ngi am looy carte mm-hmm. ay poste yooyu xoole yu demee noonu maanaam fii yëg fii ñoo feesagul bu feesee moom <laughs> loo xalaat di nga ko wax quoi malheureusement foofu la ñu eggagul pour ma bañ a gudd euh, kon yemale fi wax waxtaan wi rek en fait sama parce que li bëgg moon sax li ma wax def cours magistral li mu bëggoon moo ñu échanger mm-hmm. parce que xam naan ne mën naa fa jàng lu bari mm-hmm. léegi li yoo xam ne dëng na ci wax ji rek ñu koy loo xam ne suñu matadi la mm-hmm. lu ci baax ñu sant ko borom bi salaamaaleykum